fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tolloole ak xew-xewu jamono ak ana lu ci ab jullit di. néeg ak num mu ca war a def xew-xew bi mooy gis nañu ne li ci gën a siiw gën cee fës doo déglu benn rajo te doo te dé nekk waxuñ ko ca lu ne gàññ doo xool benn tele yi ne ci réew mi te waxuñ ca lu ne gàññ wala xët yi nga xam ne day xëy ñu di ko bind di ko jàng mu ciy gën a fës lu fese nak euh ci rewum julit julit yi ñom war nañu xam fañ faré atté wuñu jëmmi jëf ji ci bopam ñu di wax politique waaye dañ cey tan Ben rek bo xamné politik ñi yëngu ci politique bi dañ koy wax waxé ba ñepp tambalé xol ay gëtt ñañ ko jëmele dañuy dégg ñu naan yi diiné yi wala sëriñ si dañoo war a wax loolu nag bokk yi saa boo ko déggee ñu di ko wax waxee loxo dem na gémmiñ te ab tib yóbbuwu ko ca laaj bi nag mooy lan la kilifa diine war a wax ak lan la ab sëriñ war a wax ci loolu lan la doonte ab sëriñ ak kilifa diine duñ benn dañoo mel nañu dend te bokk xaaj ñoo bokk euh, kilifa diine boo demee ci suñu mbokki awsa yi ñu ngi ko tuddee maalam maalam mooy maalam rek foo xam ne xamukaay la ci diine lu way bëgg xam ci diine boo ko demee ka nga fay fekk maalam la ñu ko wax maalam bokkut ak may gi da may gi da nag moom ku la neex mën nga ko woye ku la jox mbusuk suukar sax sañ nga ko wooye turu woowu mooy sëriñ rek waaye baat bi ci wolof sëriñ bi ñu ko gëstoo ñu bari gëstu ci nee nañ mooy li muy tekk siraaj ak niit kuy dox guddi da koy soxla di xam fa muy teg tànkam te bu ko séenee ci àll bi it xam ne am na ci niit yooyu fu nit nekk lay nekk mu wutali fa gindiku yàlla ba mu doon sawara nag kese ndax sawara kese kese am na tontu bu sëñ bi sëñ mag bi tontu won ca ganar neena courier mom mokay moom bokku takuk nit mom la xamkatub wata waxon ne ku ko doon tàggu bëgg gont jëm fu sori mu ne ko dedet wata bi nga yore am na ak nit waye nit gi tax mi def ko ci moy aw yoon fekk la ci guddi fekk la ci yoon nga war a àggale sa yoon niite ko ba àgg waaye doo ko taal ci dëkk di ko génn kon kilifa diine ak sëriñ bi lan lañu war a wax daa mel ne fi ñu koy waxee tudd naa ko mooy foo xam ne loxo daa dem gémmiñ te tibb yóbbuwu ko wala ñu dem ba def la waaj a waxoon rek romb am pénc fekk mag ña toog ca garabu pénc ga ca kaw tóoj ya saa su nekk ñu xëy buub ko ba mu set wicc ñu tonni leeñ maasala mu ñëw na capp ci seen pegg ñu ne ko tee ngaa dem ba nële mu ne ah suuf sëpp yàllaa ko moom yéen a moom fii daal di àgg suuf nis tuuti euh, jataay barax ba ñëpp dégg mu geesu leen ne ana fu ngeen waxoon ñu ne ko loolu wessu na xana xana kay bu beneen ne waye tay mom wessu na bu fekkonte ne bañ ko waxé da dégg sédd leen cër ñom ñëpp mu sédd leen cër ñom ñëpp ña fa nekkoon la koy dal yàlla ko dogal waye ma na ko jaare fenen fu dul foofee ak la ko fa dal dal ko fa bokku yi su fekké sa buñ aggé ci xëccoo bi rek le kilifa diine wala ab sëriñ wara wax ta fekk bañuy noss Euh, waajal ko ay at bind ko fu nekk na muy demee musuñ caawoo kilifa diine musuñ caawoo sëriñ suñ ko nee waxal li muy wax lu xamut la nar a wax wala lu yoonam nekkut te suñu Abdul Ahad Mbakke moo ne woon mbir ñette ko séq ñett ña kenn ku nekk war naa xam ne mu doon ci mbir ma loo xam ne da koo bokk ak ñëpp su fekkee da koo bokk ak ñëpp war naa bala caa jëfandikoo lu ca sañ-sañ mu waxtaan ak ñoom ndax ñoo ko bokk ak loo xam ne moom kenn moo ko moom loolu moom lu ko ca soob lu dul yàq ko mën na ko ca jëfandikoo ak loo xam ne yoonam nekku ca la yoonam nekkut nag mu maandu ca day mel ne nag kilifa diine wala ab sëriñ moom ci mbir mii nga xam ne mooy xew bi ma mujjee wax dong la see mën a féetewoo ndax yëgut tinut dañoo wax ci ay néeg wax ci ëtt ba ñëw ci pénc ma fekk ko fa mu ne fagam toog ñu romb ko dem ba ci yàgg pënd bi noom jëm kaw am na sax ñu yuuxu ca biir pënd ba ñu ne na kilifa diine wax wala na sëñ bi wax lu muy wax kilifa diine it mënta wax ndax moom dafa tënku ci li gën a wér lépp muy diine diine bokk yi lu nekk day dem war a fekki diine jël ca waaye diine wóotu topp ci ginnaaw kenn xajut fenn ci ginnaaw kenn xajut ci ginnaaw kenn xajut fenn moo tax li sax kilifa diine wóotu wax yetta ngi nii yoo xam ne fu fu nekkut gépp kër gu ñu tudde kër lu mu yaatu yaatu bu kilifa diine xoolee gisu ñetti néeg yooyee yoonam nekkut ca googu kër loolu du samay wax waxi suñu borom tabarak wa taala la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko nañ yàlla mo jëk wax ci alquran ne yàlla mi nga xamne mo leen bind di seen borom di leen diggal te sañ ko di leen tere te sañ ko te ëllëg gi ci biir mu yorug pay mo leen dénk ngeen di sam ko leere ko amel ko leere yow bu dara dess ci sa wet na mat sëkk la nga ca am na mat sëkk moom it su ko defee lépp mat wetam ak wetam mat lépp baax waaye suñ leen woowee ne leen àtte leen ñu it na ngeen maanu yéen moom bu ñu leen àtteloo seenub àtte waruñoo xam fa ngeen fare da ngeen war na ci digg bi tëdd njaaxaanaay ni seex di def yaay ji seex nga xam ne seex bu ne day jël wenn di nàmp <coughs> su boobaa nag seenu gën a farlonte ci la ñuy ëpplante ndax saa su nekk dangay gis seex boo xam ne moo ko yóbbul morom ja te mu ñoo bokk mel soow mu ñu nàmp wala mel ni meew waaye ndigal li daal mooy koo seqal kóol kóllëre moom bul ko bu mu tàgg bu mu daggee ci yow sooy àtte nanga nga maanu benn ñaareel ba it boo xasee ba ne danaa def wala danaa bàyyi bu ko sa bakkan fekkee bu ko sa ngor fekke mukk boo xasee ba ne danaa def moom ñax gaa am moom dañ ko nettali sa gannaaw waaye na nga ci nekk bañ xam ne yow mii waxoon nga ko te ca nga faatoo waaye danaa ko bàyyi it luñ la ca bëmëx bëmëx nañ la rey rek ba dara la ca bëmëx waaye dugg ca bu mu tax nga mu fekk ngay dund moom <clears throat> ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dunde nag ñaar la dana ñëw ñetteel bi ñetteel bi ka leen boole ñoom ñëpp ëmb yonent bi sallallahu alayhi waaye ngi nii joo xam daa ñëw fekk ko mu toog mu nuyu ko ci misaal jàmmasanteeg moom ne ko dama la doon ziyaara maa ngi dem mu ne ko tey nga nekk comme niñ koy waxantee ñun ci suñ jamono ba naan dara waaye ne ko maa ngi ñëw yonent bi toog fa di ko nekk ba mu man ñetti fan fu mu dem rek ñëw ne mbaa ndax kooku ñëw ne ñu ne ko ak seegudde mu toogaat fa di nekk bañ waa ji ñëw di ko fa fekk kon daa am lu faset nekk moom loo xam ne maa ngi ñëw jëla jàpp nekkit yo waa ji moom jàpp ko na ko yonent bi jàppe sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee mu ne ko yow kat ci ñetteelu fi ñetteelu fan ba benn ñaar ñetti fan ba yonent bi seen ko jóg tatafu ko ndokkeel ko ne ma jàmm la woon mu ne ko jàmm rek la woon mu ne ko ñetti fan a ngi nii maa ngi toog di la nekk ci maa ngi ñëw jàng ma waxoon kooku kon sàmm kaddu ab julit war na ko jàng bu baax a baax a baax fu kaddu nekkul nag waxuma la ab sëriñ wala kilifa ak diine waaye ab julit sax mënu faa dëkk moom mënu faa nekk yoonam nekkul ci foofa kër googu kër gu am kaddu yoonu sëriñ nekku ci wala kilifa ak diine ñu ne Seydina Ismaayil mi nga xam moo jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti jamono te moom jëfam ak ñi mel ni moom ci ay anbiya ak i ay mursal luun ñëw gi yonent bi rek lañ doon waajal sidna Ismaayila moom wax nañu ne nit joxante na ak moom rendiwu rendiwu nak kàddu moo koy jël moo koy joxe waaye jëf moo koy moo koy moo koy soto mu ne ko daje mu ne ko barab sàngam Seydina Ismaila dem fa am at mom waja am at dik ne ko damaa yàkkamti dañ ma woo ci lu gën a jàmm may ma fa at di nekk at mom mom la waaye end di wax one minute indian one minute buñ la wat fek wan minute rek man na am sax girig dund lay doon du du ñëwaat far <clears throat> kon bok fo am jangata ngi fi ci réew mi ñu bari gëm nañ té bok yi wa réew mi ñëw jur ñi nga xamni ne ñoo yëngu ci politique bi wa réew mi wa réew mi gëm nañ ne bo né juróom ñent wax ci suba la ñu né ah juróom ñent wax lañ wax waye man na nek ba midi nga dox li ngay dox lepp ag bu ko ñëpp waxe kañ lañ fay daje loolu ñëpp gëmënoon nañ ko waye buñu démé ci <coughs> jamono Yonent bi sallallahu alayhi tuuti Seydina Omar ibn Xataab ak astafurlah Abdullahi ibn Omar ak Abdullahi ibn Abbas ñoom ñaar doon nañ waxtaan ak jullit yi suratu tawba di ca wax ba agsi ci ay aayaat yoo xam ne ñaar ba ñett ngi ñaari ay ñetti kàddu yi ñetti kàddu yooyu nga xam ne mooy bu waxee kàcc ca kàcc mooy dolli ku xam mbaanik xam muñ def ndox danga xam kàcc wala boog ñu dindi diw ga rek dindi la woon ca kaw la ca des mooy kàcc <clears throat> bu dee ciy wax nag mooy dugal ci lu ci bokkut dolli ko ba mu ne gàññ walla sax mu sos ko far sos soowum boppam te soow moom daa yàlla rek moo ko amoon biñ koy firi ba agsi ci wa minhum man aahada allaha la in aataana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min na ba àgg ci fi ma yamoon sànq ñaar ba ñetti aaya la dañ ne fii de biñ fii bi mu wàccee demoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun ñaar ñi dañ lay laaj loo xam ne rëbb tiit ak jàq lañ ci boole ndax bi nga ñu koy firil danga ne ñett ngi nii ñoo xam ne ñett ngi nii yoo xam ne ku mu nekk ci yow naa naafiq nga naa naafiq nag bokk yi mooy koo xam ne ab xolam daa am xelam day xalaat a génn ci diine am xelam ba ay cëram tàmbali koo jëfe lu ñu wax ñu ne kenn mënu ko waaye faasiq nag mooy koo xam ne génn na benn tànkam moom tàmbali na koo jëfe moo tax suñu borom ne ci alxuraan ñoom ñëpp ñoo bokk benn a innal munafiqina humul fasiquun ñu ne ko yett yii de ku wax dolli ca kàcc ca su la joxee rendez-vous du ñëw te soo ko wóoloo mu war la ñett yii de moom gannaaw mooy daayira munafiqin yi dañoo bëgg nga firil ñu ndax suñu xel dal ndax rët nañ tiit nañ jàq nañ te nee nga kenn ku ci am ku ci yor benn rek bu muy làng-làngee fu mu jëm buñ xaajee nifaaq ñetti xaaj moom ma nga benn ba yonent bi daal ree sallallahu alayhi wa sallam ak neexoo ni ree ni ko sëñ Moussa Ka melale ci Yaasin dangay xam ne kenn reewandoo gut ak moom yonent ba mu ree mu ne loolu de moomu leen ko yéen ñu ne ndax yàlla mu ne lolu munafiqin yi ñoo ko bu ma ne sa bu waxtane katch lolu du samay wax yalla ko wax yàlla mo mané won iza jaaka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah munafiqin ya nga ne di tik bu ñewé lañ lay wax moy nashhadu annaka la rasulullah yow mi de yoway nawul yàlla li ni ko ñëpp di wax rek lañ ko wax mu yem seen làmmeñ waye lolu yàlla mom xam na ne innaka la rasuluhu wallahu yaalamu innaka la rasuluhu yàlla xam na ñaar yëpp xam na ne ña nga ne di ñëw xam na ne danañ ko wax moom xam na li ñuy wax lépp te àgg guñ ca waaye suñ ko waxee ba noppi it yàlla moo gën a xam ne innal munafiqina la kadibu la kadibun li ko waral mooy ittaxadu aymanahum junna mën nañu ñëw fii nga xool li nga gën a fonk ñu waatal la ca giñal la ca ne lii ma la wax danaa ko def maa ngi a ànd waaye buñ ca noppee noppi nañ ca buñ fa jógee rek jóge nañu fa ñëw wala bu ñu fa jógee bokk la ñuy daal di nekk ci ay pexeem rek mooy yow mii ñu teg ñu jox cër ba tax ñëpp di jëm si fi yow nu ñu lay xañee cër boobee ba kenn duuti jëm si fi yow wala kenn duuti la wóolu boo waxatee yàlla nag ne innahum sa ma kanu yaamaluun loolu su ko nit waxoon dañ naan mara dem si dafa saaga innahum saa ma kanu yaamaluun ak ñu lu ñuy def liko waral moy sen pas-pas da tambale genn ci diina ñu tuddu ay munafiqun sen ben tank na cipp ci biti tuddu ay fasiqun zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fofu mom ku fa xass ba àgg duutu gem dara lim bëgg lay xam rek xam sax na ko na jar ba am neena bo len di dégg ñuy wax dal da ngay ne li ci alquran la bok neex lol wër lol waye nak na nga xam ne ñoo na nga tay ci ñoom buñ ñu jógee fii rek ñu ngi lay tàmbalee fexe wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushbun musannada yaxsabuna kulla sayxa alayhim humul adu faxdarahum kon léegi ab sëriñ ak kilifak diine dafa am ndigalul ne tekk moom ci koo xam ne li muy wax danaan la yow mi ma koy waxal rek yaa koy daa koy dese waaye man su ma noppee noppee naa ci yàlla noonu yàlla musal ca loolu waaye su la diggee it بيبو جير دوما سا دوم موي فيمي واخنا ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن سوما جابلي بما ام ليما بغ ليغا بغ دانكو ام سو نانغو ليغا بغ مو لاكاي ديفال ريك موم تيغتو لا فن واي سو لاكو واخي دا كو ديت ليما بغ مونو يالا كو مان موتاخ امنا كليفو غني سي بنكو ني سينغور سب خريطه سينغور دا ني دو سما خريطه ndax xarit ñu bokk pass pass ñokoy koy siq al akhilla yawma isin ba'dhum li baadin aduwun illa al muttaqin dan ne dit mom da fay ñëw bëgg lo xamne man mën ko mayit ma bëgg lo xamne mom man na ca dara ñu jëflante ci mu yam fa kep wa minhum man aahada allah la in atana min fadli lanasaddaqana wa lanakunanna min alsalihin am na ñoo xam ne bu ñëwee loolu daañu la ko dig waye suñ ko amé li jëk jafe moy jot leen téléphone wala gis ko leen xamat ndax ñañ xamoon ñep dañ leen di bàyyi wut ñu bes peq fa lamma min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun tawallaw wa hum muridun ñaari baat la yo xamné benn bi day fet li morom bi wa tawallaw wa hum muridun ne meng waaw day jek jek na mes ne meng آية بويت نانا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون تخمو ين يلا خمنا لن يوخ بنكو وخا غوتك بنكو وخا أغلى شيء توب لب نيوم نك دنيا دفنة لينت ني بغ لب سين سين يخولا نك كو گم لول رك ني تام لا ساك خيخ موم ndax dañuy xamne yow mi xamul li nga yor lam doon motax yett yoy bu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne koo xam ne bu waxtaanee kàcc ca su la diggee yaa koy dese waaye moom noppi na ca soo ko wóoloo ba dénk ko mu war la ca benn bu ci nekk nee na leen ndax foofu ngeen nekk ñu ne ko déedéet yàlla tere ngi koy bokkuñu foofu mu ne kon bokk fu ngeen ko dégg ci daw leen fu ngeen ci dégg benn rek daw leen fu ngeen dégg koo xam ne kii bu waxee noppi na ca yaa ko dese te dana ca dolli ba mu ne gàññ mën na koo seereel nii sax ne diw mi fekk na ko mu ne waaw maa ko fekk ci dara xassawu ci neena na kër googu néeg boo ko seen dawal waye neeg bo seen nit ko xamne lum diggé mu diggee dawal waye neeg bo seen nit euh kook ka fa dëkke sa boko wolo mu wor na nga daw gogou kër ta bul jaar see moom mbedd sax motax tax bokk yi laaj bi dama koy laajaat moy bu fekke ab serigne wala kilifa diine moom day tënku ci waxi suñu borom subhanahu wa taala di tënku ci njàngalem yonent bi mu ko bi mu ko leerale royee ko ci ñi nga xam ne ñoo ca topp topp ca topp ci ba mu jot ci moom ana lu muy war a wax ci diggante boobu te duñ ne diw diw ci lañ bokk ne yetti jikko yi mi ngi ci ñoom waaye soo déggee daaneelu wax bi rek boo dee kilifa diine dootoo sa mën a bokk soo def sëriñ it di siraaj dootoo sa mën a bokk dañ naan fii rekk lay am njariñ lu yem fii dong la dimut àllaaxira loolu moom saa boo ko déggee génn ca pas-pasu jullit mooy lépp àllaaxira la jëm yow ma yaqumul xisaab yow ma yow ma yu bari yi ab jullit da ko war a gëm fu mu toll ak lu mën di dugg ne ëllëg yi ngi ñëw te dañ koy àtte yow ma tub la sarair sëñ bu mag bi ay mbindam bari na sa gàññ wastur maa ibana wastur maa ibana ak diku ak lu niroog moom te fekk yow ma tub la sarair lay wax yalla nak ma sutural yow ma la sarair moy su boba am lu ñuy neub te lolu lepp bok yi fi lay tambalé motax sa bo déggé lepp ndariñ lu fii dong lay am demul àllaaxira ba yaboo nga génn ca soo dee dund diine ndax lu tambalé aduna yam aduna du dara amul ndariñ ci amul jullit moom li muy gëm mooy lu tàmbalee fi rek àllaaxira lay lay teeraj mu jot ak pay wala bu tuubu mu jot ab safaan ñaar yooyu lañuy boole gëm moo tax ku xamut dëgg dëgg dëgg la ñu waxtaanee ci biir néeg ba door a génn ci ëtt bi xamut la ñu waxtaanee ci ëtt bi door a génn ci penc mi na ci maandu tey ñaan jàmm nag yal na yàlla def jàmm ci réew mi xew-xew bu ñuy séentu ñu àgg ci ak jàmm te weesu ko ak jàmm lépp loo xam ne lu ci indi fitna la ci moom lay jaare waaye yonent bi moo ne woon al fitnatu naimatun laana allahu man ay xadaha loolu lam ca tekki mooy ayab suñu borom bi muy wax ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen wattandiku leen daw leen lépp luy jur fitna ndax mën nga koo taal waaye xamoo fu muy yam day law lawaale koo xam ne sax yoonam nekku ca ndax fitna yi judd ci adduna bi ci ñaar ñu ko waxtaanee donc lay mën a mën a tàmbalee ci ñaar ñu ko waxtaanee wala kenn ku ko tàmbalee am pas-pas bi rek génn taxaw ci mbedd mi def ko mbooloo ma roy ko ca mu lawalaw ba àgg ci ñoo xam ne seen yoon nekku ca te bokk yi fitna yàlla ñu ci yàlla musal amna na suñu borom di wax ne wal fitnatu akbar min al qatl ak ashad min al qatl leg leg mu jublu ci ashirk waye du fa meuna génn yàlla momam jàmm ne wut len jàmm aw nit ne dedet jàmm bu mu fi amé bu yando it bu mu fanan koku da mel dafa bëgg a tuxal bëgg-bëgg suñu borom andi fa bëgg-bëgg bopam te du ko fekke mom te bokk yi ma fàttale ne mu fitna nek kenn du tala jaamu yàlla sax kenn du tala liggéey am na ñu ci xam dara am na ñoo xam ne xam nañ ci dara boo mënut a ñàkk génn jënd dara ci bitig ba it bayee ba looy dénkaane nga dénkaane ko ndax xamoo da nga dellu seen réer ñiy jàngale daal bis bu set ñuy wax ci rajo yi ak télé yi naan yéen ñi nga xam ne xamu leen ci fitna ci dara fu ngeen déggee taf-taf defee nu leen te bañ a jóg ba ba muy sedd. ndax new na mu fekk ku teud mu di ko ray xana dañ ko tim dal ko ko loolu dong lañ ci man waye bay recc borom di dal kenn mom kenn munu ci dara borom sax tay man na am ci ko jub ci gëna tuti euh fitna yi ben bis manis na ko jima defar fukki at ta du jak ndax bu ci bakkan xasse ba dess rek bakkan mom yalla dong moko am moko meuna defar te daf caa teg lu diis kenn ku fexe ba fitna juddu ba kenn des ca képp wax na lañ koy def nañ ko yóbbu ca digg ëtt ba ca digg pénc ma ñëpp fekk ko ñu ne ko ndax yaa ko tey bu dëgg réew fi ba ne moo ko tey jubluwu ci kenn kenn yow néewu ko nañ ko def nam def waaja su fekkee nag moom mii indi fitna fitna ca daa jaare ca fitnaam joojee fagaagal mbolo mo bari yak alal ju bari nak koku suñ ko ni ñu koy def ben yon lañ koy mëna ray waye la ci des day des suñu borom subhanahu wa taala motax yalla yàlla yalla defal jamm te dolal ñu jamm luy jall rek la buy gëné a sax danañ ci gëna ñaaxaat waye luy képp la ni ay moroomam jallé Sénégal wéy di dox mom ñi fi dekkoo nit ñi ci yalla jël rek di dem ci jamm ñu naan leen yalla yërëm leen ñi fi deseel yalla nañ fi yag waaye Sénégal du tax mu taxaw kon bok ku la nekkay ñu dem ak ku mën di doon ñu yé fitna nee ko wol sama kër ana sa soxna mu ne mi ngi ni dañu ko ana say soxna ñu ne ñi ngi ni mu ne ay ci leen nañ jitt la and dem tañ taxaw ci kanam suñ taxaw ci kanam luy dal leena dal buñ daano ne kat jaadu na kon jar na ko su boba bisub dee bisub dund ngor daal di war a judd as gor a ngi nii bokk ci yax bu rëy rëy daa ànd ak moroomi gorom loolu laay jeexal mu tënk lépp daa ànd ak moroomi gorom dem ca jëflante ba ca xare ba moom kenn mu ñëw di ko nettali fasam wi set wicc ay yéreem set wicc kuñ ko laaj mu ne dee na nu mu dee mën dañ ko rey ñu ne ko waaw yow léegi am na loo war a wax ak ñun foo nekkoon bañ leen di rey yaa rekk moo mën a am dangaa fenn dangaa wax ba génn ci walla nga daw su fekkee dangaa wax ba génn ci waxal li nga wax ñun ñu sàkkal la pexe léegi ndax ñun kenn du bokk ci ñun di wax lu dul dëgg bakkan jëral lañu ko waaye su fekkee dangaa daw it Eh, nañ xool sa gannaaw ba xam am na ay yar yu la doon dalam deet ñu xool mu set wicc nuñ ko def yóbbu ci pénc ma ray ko ne ko dangaa war na dee waaye waroon ñoo di ko nettali bu dee askor nga kon bokk bokk yi lu ñuy bokk lu nekk nañ ko bokk ci ngor rek suñ ko naree jël ñun kenn béyee boo sax mu tuur waaye bu ko kenn jariñoo moo gën moo gën nangu ko ci seeni loxo nax leen jël ko jéem koo jariñoo yow kese loolu moom yàlla na ci yàlla musal te day dikk ci ñetti yonent bi wax ne ku nekk ci moom naafiq digg la su waxee sos wala mu dolli su diggee wala mu dig la soo ko diggee moom dana fex ba jot waaye su la diggee moom jër duma sa doom waaye soo ko wóola ba dénk ko waxaale wuñ ko daf koy def rek nekkañ doon yóbbante nettali nañ ko ay yoon yoon yóbbante kenn dem ne ko jox ma sama la ma la yóbbante woon yóbbanteetu ma mu ne ko yaa ma antas yaakaar nga ma yóbbante ba ma yaakaar ko waajal sama lépp nga di ko jël nii rek di ma xool mu ne ko maa ko moom yóbbanteetu ma kon bokk bokk yi koo xam dana ñëw na jox ma dénk ma kese am lii te dénk ma am am am ñaar fukki te dénk ma sa mbuusu muraaki mi nga xam ne juróomi téeméer mayu la ko bokk yi lu ku ne xam na ne nekkul lu laxas sa ginnaaw yal na nu yàlla musal nag ci xam lu muy doon ak njariñoon la muy doon yal na yàlla defal dëgg ak topp te mu seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib julit mënu koo bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetloo